Euh, te Modou maa ngi euh, fàttali ne. Mhm. Sénégal xamul luy prisonnier politique prisonnier politique amul Sénégal li fi am mooy xam nga prisonnier politique mooy kan. Mhm. mooy koo xam ni ay axam ak yelleefam si wàllu politique mu ngi koy jël ñu ngi ko koy xañ si wàllu politique waaye moom wàccul benn yoon yoon ku ñëw. Euh, ne da ngay manifester. si réewu Sénégal constitution dafa ne article huit da nga am liberté pour manifeste waaye nag da nga war a tënku si loi yi ak règlement mooy da ngay ñaan préfet. mu jox la autorisation bu la ko joxul soo ko defee. wàcc nga yoon buñ la jàppee loolu du politique de. Mhm. tey boo ñëwee toj alalu jàmbur taal këru jàmbur yor cocktail molotov taal TR bi taal euh, BRT bi. moo daaw loolu. ñooñu leur place est en prison. mais. mais mais du ñoom rek lañ jàpp. mais am na ñoo xam ne seen kàddu lañ leen téye. bon kàddu. y a des exemples kàddu wax nga lu am solo. waroo saaga. suñu yoon dafa tere ku saaga. Mhm. dafa tere ku sos. dafa tere ku def diffusion de fausses nouvelles suñu yoon da ko tere loolu boo ko defee droit commun la de loolu du politique de. Mhm. bu fekkee yow politique fasu politique nga war ba nga sos wala nga saaga wala nga wax lu amut yoon day dal sa kaw.